ñoo ngi faatu comme i weñ yéen kay gi di réew mi quotidien nee na ak gaal goo xam ne moo doon jéem dem Espagne ci waaxu wakaam yi ci la gaal ga tëmbee am ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan yéen kay gi di source nee na ñi nga xam ne nag ñooy nekkoon ca gaal doon jéem a daw marine nationale bi ba far nag daal di am lu ñu mbëkk ci biir géej gi daal di këpp am ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan loolee source a moo xëy di ñu ko xibaar yéen kay gi di la témoin moom nag li mu gis ci jëye ji nga xam ne moo am ci waaxu wakaam yi mooy lu toll ci fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan Kana guddik dimanche jàpp altine ci trois heures du matin fi tolleeg mosquée divinité bi fa la jëyee ji amee gi ne na ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci gaal gi ak capitaine bi yoroon gaal gi dañoo demoon ba jaaxle maanaam daal di paniqué ndax marine nationale bi nga xam ne moo leen doon wër yéen kaay gi ne na ñi nga xam ne nag ñoo nekkoon ci biir gaal gi te nag am lu toll ci fukk juróom-ñett ñàkk ci seen bakkan fa ñu jugee nag ci biir Sénégal journal bi xëy na di ko faram fàcce nee na am na ci ñenn ñoo xam ne yëmbal la ñu dëkk am na ci ñenn ñoo xam ne Pikine la ñu dëkk am na ci ñenn ñoo xam ne Touba la ñu dëkk am na ci ñoo xam ne mbuur la ñu dëkk am na ci ñenn ñoo xam ne caaro la ñu dëkk na ci ñenn ñoo xam ne mbooro la ñu dëkk yéen kay gi de libération nee na gaal gi nga xam ne moo këpp ci waaxu wakaam yi ba am lu toll ci fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne faatu nañu ci départ caaro la woon caaro la ñu départ ay trois heures du matin la ñu daal kay gi nee na am ñoo xam ne rëcc nañu ci maanaam trois rescapés yéen kay gi de la sa nee na fukk ak juróom ñoo ci faatu am ñaar ñoo xam ne ay rescapé lañ yéen kay gi di bés bi nee na lu jëm ci wàllu mbëkk mi barça wala barsax gi ma ngi melu tuleeg màlle naam jéyu bu doy xibaar boo xam ne am na ci waax wakaam yi waaye nag am na lu toll ci fukk fan ak juróom yoo xam ne am na genn gaal goo xam ne Fass buy la kenn xamu ci dara kenn amu ci benn information maanaam Fass dafa am ak gaal goo xam ne moo fa déparé woon boobaak léegi fukki fan ak juróom la te gaal googee ba léegi gaa gisuñu ko yéen kay gi di suddi ko di jaaxëy duñu xibaar nan ñu en ñi nga xam ne ñooy faatu ci ndox mi jamono ji maanaam ji gën a dayoo ndax fan yi nga xam ne moom la ñu génn lu toll ci ñaar fukk ci nit ñoo xam ne faatu woon nañu ci waaxu Saint-Louis jamono ji am na ci fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne ñoo faatu ci waaxu wakaam ye yéen kaay gi nee na mbëkk mi jamono ji ma ngi rey journal bi di réew mi quotidien nee na nag ñi nga xam ne ñuy waa FRAPP France Dégage ñoom nag jàpp nañu ne ji ji xale yi nga xam ne ñooy jël gaal gi ci réew mi ak dem ba amutuñu yaakaar ci réew mi loolee Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ko waral ndax politique bu bon bi nga xam ne moom la ñu yore réew mi yéen kaay gi di enquête xëy di ñu xibaar naan ñu gaal moo tëmb ci waaxu wakaam yi nee nañu lu toll si juróom ñoo nekkoon yéen kaay gi na gaal ne moom la gaay duggoon ci ndox mi du gaal goo xam ne mën naa dem Espagne yéen kaay gi ne nag ki nga xam ne nag moo nekkoon capitaine bi yoroon gaal gi dafa bëggoon a rëcc ci marine nationale far na jéey ci daal di am far kaawa daal di am yéen kaay gi dañ leen foo xëy duñu xibaar naa ñu enquête bi li nga xam ne moom la waneegu na maanaam gaal gi nga xam ne moo tëmb ci ndox mi du gaal gi moo waroon a dem Espagne waaye nag ci biir ndox mi ci biiri biiri ndox mi dafa am gaal gu mag goo xam ne moo fa taxaw xam ne gaal gu ndaw gi mooy jël di ron di yóbbu gaal gu ndaw gi di jël di ron di yóbbu ba gaal gu mag gi fees mu doog a gaal gu ndaw googee nag nga xam ne nag moo sëfoon ay nit ngir yóbbu ca gaal gu mag gaal googee moo këpp yéene gi nee na da doon a daw ngir nag rëcc ci patrouille bi nga xam ne marine nationale doon nañu ko amal ci biir géej ga yéene kaay gi di wal fajiri xëy di ñu xibaar naan ñu lu ëpp fanweeri nit ñoo xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci loo xam ne motul fukki fan ak juróom ci biir ndox mi yéene kaay gi de la na nee na xale yi nga xam ne ñooy jël gaal gi jamono ji bekkoor ak xiif ak pauvreté ak ñàkk ak ndóol gi nga xam ne moo nekk ci réew mi la ñuy jéem a daw te nag réew moo xam ne or baa ngi fi ndax ci atum 2022 bi ci dix-neuf mille deux yi or yoo xam ne jël nañu ko Kédougou réew moo xam ne or baa ngi fi zircon baa ngi fi phosphate baa ngi fi pétrole bi ak gaz baa ngi fi waaye réew maa ngi ndóol ba maara détail yi bokk na ci li tax xale di ko daw a jël gaal gi yéen kaay gi ne na ndox mi jamono ji ma ngi faata ñi ciy faatu ma ngi melu lu toll ci ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ñoo li ambadesal fukk ak juróom-ñett la ñu wax ne ñoo faatoo waaye nag ñi nga ci gaal gi dëgg-dëgg loolee ba léegi lu leer amugu ci fulu total moo ci am li am ci l'observateur nee gaal gi dañu ko mbëkk mu daal di ci ay xeer yéen kaay gi di wal fajëre bàyyi mbiru mbëkk mi te wax ci lu jëm ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ak pëccëxoo gi nga xam ne jamono ji moo ci am journal bi nee na Macky mi nga xam ne moo nekkoon ci mi naan du wax oui du wax non ci ba fan yi nga xam ne moom la ñu génn demoon na seen TV doon fa def ab émission waaye nag journal bi nee na dafa am benn jegeñaaleeb Abdoulaye Daouda Diallo boo xam ne moom la ñu wax ne moom la ñu filmé mu doon jéem def affaire mystique affaire xarxa fooxa ci fi nga xam ne mooy seen TV googe nga xam ne fa la Amadou Ba demoon yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu ñu xibaar naan ñu barrière yi nga xam ne moom la ñu defoon cité kër góor gi ci kër Ousmane Sonko ba du mën dem ba du mën a dikki barrière yooyee dindi nañu ko Ousmane Sonko ginnaawam bandang jamono ji yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy du ñu xibaar naan ñu Cheikh Bara Ndiaye niki démb daat nañu koy déglu juge d'instruction Mamadou Seck moo ko dégloo ay avocat ma sàkku nañ li nga xam ne mooy ab bayam néegu ni ko maanaam ab liberté provisoire journal bi di bés bi nee na juge bi daat nay sàkku Cheikh Bara Ndiaye ñu joxaat ko ñetti téléphone yi nga xam ne maanaam tegoon nañu ko loxo yi ni kay gi du l'observateur nee na malaise moo am ci transport bi jëm ci wàllum jaww ji maanaam transport aérien jamono ji malaise moo fa am diggante Doudou Ka ministre bi ak directeur général bu AIBD di Abdoulaye Dièye journal bi daanay dikk ci njombe yi nga xam ne ñaar ñiy def nañu ko yu doy waar yi nga xam ne na ci ak contrat à milliards yi nga moom la ñu fa nemmee ko kees yu vide yi yéen kay gi di Walf Fadjri xibaar naan ñu Kër Massar ginnaaw taw bi nga xam ne taw na ko fa niki démb njombe gu rëy moo fa am askan wa jamono ji ñoo ngi ci ndox mi bëri ay kër yoo xam ne taw bi daf ko nangu yéen kay gi di Sud Quotidien nee na bus Tata yi ak grève 72 heures bi nga xam ne moom la ñu amal ñi nga xam ne ñooy passager yi maanaam am na ñuy jafe-jafe na grève